Eh, sunu réew mi di Sénégal eh, di réew mu eh, neex a dëkkee ndax nga xam ne bii nag moom mooy Adamo xeex bi nga xam ne bii moom la doon xeex ak kii di Pawlish Mbaye fee ci réew mu français te montre ni ñoom sax naam benn njëkkee attaché fee ci réewum France euh, kii di Adam moo sax moom doon teral ki nga xam ne bii mooy Pawlish mbay ba Pawlish Mbaye ni ko yow boo ñëwee Sénégal noon laa lay defal ñu dikkati mit ki nga xam ne bii moom daanaka kenn xamul leen nitu ko lu mu doon muy kii di Ouzin Keita ñu daal Sénégal dañoo jël ñi nga xam ne bii ñoo gën a waye di ci Sénégal ñu daal di leen def li nga xam ne bii mooy ay héros maanaam wala ñu wax leen ay di ay star ndax ki nga xam ne bii nag mooy Pawlish daanaka fu mu génn ñu koy dékk li nga xam ne bii mooy ay micro te kii di Pawlish nag daanaka ay jëf ji mi jëf daal du nuroog jëf ji nga xam ne bii moom la nit ñi di jëf kii di boole na ci daanaka col gi mi sol daal yéeme. ay Ouzin Keita loo sol nii Ouzin Keita Jamra ay lii. kii di Pawlish Mbaye muy sama nag aywa aywa aywa aywa dama nekk ak nga xam ne aywa da koy jàpp aywa ma ragaluma lu may sama parce que yàlla ma ragaluma sama dama ko ragaluma